mbokk di amaat mbekk rek bu baax a baax a baax saa rek di jàkkaarloog yéen fii ci 4appuis yi mbokk yi di dalal ay kilifa waaye tey ñu toggatee kilifa goo xamante ne naam dootuñu ko présenté askan wi waaye xam taxawaay bu am solo bi nga xamante ne saa su ne rek mi ngi koy taxawee ci réew mi li ci ndimbal ak faj euh, aajo doomu aadama yi sénégalais nag yaakaar naa ne miin nañ jëm ji bu baax a baax a baax ci euh, yu baax yi nga xamante ne saa su ne rek mi ngi koy defal askan bi euh, Serigne Kamal la mbokk yi tey ñu seet seeti ko rek waaye mu doon loo xamante ne aussi sénégalais namoon nañ ko ci gëj a gise bi loolu lépp tey bëgg nañ ci waxtaan ak moom yàggul dara ci gëj a gise bi aussi euh, noonu ñu nekkoon ci jamono élection yi nga am loo dénkoon sénégalais ci kandidaa yi am noo ko waxee ak ñoom ci leeral yooyu yëpp bëgg nañ ci ñëw dañu lay bàyyi rek nga nuyoog mbokk yi ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax cheikh bi waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi leen nuyu di leen du di nuyu mboole moom sénégalais foo mën a ne di ñaan suñu borom defal la jàmm te may la xéwal te musal la ci gàcc ak àddina gàcc ak di ñaan Sénégal gii ñu nekk suñu borom mu gën fee wàcce ay tawféexam te defal ñu jàmm ak mboolem réew yi ñu wër te ñaanal xalifa seen roy yi suñu borom yàgg leen fi te wëree seeni i cër waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokk na ci question yi internet yi di laajte gëj a gise yi nga xamante ni naam sa jëmm ji saa su ne dañu koy faral di namm loo waroon gëj a gise bi sëriñ bi. waaye nekk ci liggéey bi rek. ndax bu ñu soñoon maanaam euh, weer ne. dañ ci génn benn yoon wala ñaari yoon waaye léeg nga toog 4 mois wala 6 mois yoo xam ne si liggéey bi dalee yëpp doole léeg-léeg nga génn tamit nekk ci gox yi fasantikoo yi rek mm-hmm. loolu rek mooy waral gëj a génn waaye alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi ci jàmm bu baax a baax a baax a baax di sant yàlla di julliwaat ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. mu bokk ci li nga xamante ne tey bëgg nañ ko waxtaanee laataa ñuy dugg ci euh, question yi euh, wala mbir yi nga xamante ne tey askan bi ñu ngi koy xaar ci jëmmam ji suñu borom may ko ci xam-xam boo xamante ne ku ci jëflante rek nga gis li nga xamante ni moo di sa njëriñ waaye sëriñ bi naka nga gisee euh, réew mi ak jamono ji ni nga xamante ne mi ngi doxee waaye nga am kàddu yoo ñu dénkoon laataa ngay fatu nga génnaat mu mel nekk nag ñu ko waxee woon noonu la demee ci dénkaan yooyu yan kàddu nga ciy waxaat askan bi. waaw alhamdulilah moom as gor moom boo xasee ba wax rek tënk na boppam rawatina ci pénc mii di Séné Sénégal te luñ gën a réccu tamit loolu ci la bokk ndax génn ne diw du yor réew mi moom luñ gën a réccu la waaye euh, loolu moom ginnaaw jàll na jurut di kiiwaat ndax kii fi yàlla teg Bassirou Diomaye Faye mii fi yàlla teg euh, li mën a gun Sénégal yi yëpp ku di jullit te doom naa feq dal nga ci xel sa xel dal na. mais jamono ji ngay wax ni Amadou Ba du yor réew mi boobu Diomaye sax candidature am leeragul woon ñuy xam ndax dina nekk président du ko yor euh, fan ko tolloon ba wax loolu. Sénégal dafa naqare wax waaye man giñ naa ci yàlla. ci hmm. màggaay gi yàlla ak ak yàlla na jullit yëpp dem na ma dem sawara xamoon naa Amadou Ba du jor réew mi ndax booba am na ay sources yu leer yoo xam ne si yoron naa ko du woon mbirum baatin hmm. doo du woon mbirum baatin lu ma xam la sama lépp Macky Sall laa ko jox mhm. ci politique mhm. ànd ak moom ci politiquement ne bu doon ànd di wut troisième mandat moom laay wooteel mhm. ndax ay mbir yoo xam ne si xam naa ko ci moom am ay jege ñaale yoo xam ne si yëpp samay xarit lañ ma xamoon ci loolu euh, waxoon naa tamit ne bu demee ba nga xam si dem rek moo des te day xam ne maanaam ñi mu àndaloon matiwu ko loolu yàgg naa ko politicien di ko wax comme sama jotaay xam ne yàgg naa ko wax Euh, Amadou Ba aw ma woon ci moom yaakaar ne war naa mën a jiite réew mi dem na ba ca biir tamit ak réeroo am ci moo Macky Sall mi fi nekk waaye man la yooyu yëpp jurut jurut kii ndax euh, Bassirou Diomaye Faye mii fi yàlla teg ku di Tidiane ñi doon wax ne maanaam gëmul lii am nga xel mu dal ci moom ba mu demee Touba yar gi moo ne am na am na te opposé wu tamit teel na ci ñoom hmm. nañ ko bàyyi fii juróomi at juróom mu xool mu doxal te ak yaram mën na koo may lu bëree bëree bari waaw nañ ko ñaanal daal yan bi oyof ci moom ànduma ak ñoom nag politiquement waaye réew mi ñoo ko bokk te bu wengee tamit ñun la wengal buñ daanoo tamit ñun la daal nañ ko ñaanal suñ borom yan bi oyof ba fi mu bëgg a yóbbu réew mi mu yóbbu ko mën nañ ko nag mën nañ ko ndax ci démarche yi ñu njëkk def rek ci nga xam ne ñi mën nañoo doxal kon nag yàlla na yan bi oyof rek ci ñoom ñi jiite réew mi Euh, Serigne euh, Kamal ci kàddu yu am solo yooyu nga xamante ne dooree nañ ko waxtaan bi waaye lépp rek doonoon ay kàddu yoo xamante ne dagañu ko waxoon xamaloon nañu nii ak nii ak nii lay demee suñu borom dogalee ko noonu ñu koy gërëm bu baax a baax a baax ci dénkaanu yooyu waaye ci leneen loo xamante ne saa su ne yaa ngi ci saafara li nga xamante ne moo di jafe-jafe askan wi bokk na ci jigéen ji nga xamante ne nattoom dafa bokk ci ñàkk am doom mu dem fu ne wut fu ne solution bi nga yor ko jëflante seeg ñoo xamante ne ba ñu ñëwee ci yow la seen aajo faju waaw loolu ñoo ngi ci sant yàlla ndax maman bi ci sama kar ne amoon naa ci 35 pour cent ñoo xam ne si ñëpp ay jigéen lañ yàlla dogal na benn lettre rek laa ci amagul bu négatif mm-hmm. benn lettre laa ci amagul mu négatif yëpp suñ borom moo ngi ci def tawféex mm-hmm. ndax boo génnee def sorti boole say tukki nga am 35 ñoo xam ne si ñëpp yaa ngi leen di ñaanal mm-hmm. ñëpp suñ borom def ci tawféex ba mu des kenn rek loolu santaad yàlla la. du suñ jàmbaate nag alhamdulilahi rabbil alamin jigéen gi xam si mu fii moo ngi gis regal rek war naa mën am doom waa faaw da nga koy xool saytu ko xool ko ci ñeenti boor yëpp rek loolu bu ñu ko defee suñ borom mën naa tawféexal euh, ku jigéen ki ak ku góor ki ba suñ borom may leen njaboot waaw loolu moom alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. ndax liggéey bu yomb la parce que tey bëri na ñoo xamante ni dañ koy wax dem nañ fu ne mais ba ñu yegsee fii la yàlla dimbali ñu am lañ doon bëgg. lu yomb. du lu yomb déggoo man la cinq am naa ko benn rek moom ci jaaxal mm-hmm. benn rek te da ngay xool léeg-léeg doo gis doo doo gis dara lu ko ci am maanaam doom nga dafa say bagage jox ko doo léeg nga jox ko yi muy njeganaayu yi muy sango sax te te mu am résultat mm-hmm. kon du du du lu yomb ndax am na ñoo xam ne si ay def-def lañ ci am mm-hmm. am na ñoo xam si rab la am na ñoo xam dogalub suñu borom nag mooy wàcc ci ñoom waaye li ci mën a am fii moo ngi gis léegal ñi di ko xool di ko tereeti du yàgg dara maanaam bu giseem fóot balaa gisaat fóot maanaam mën naa mën naa bootaali bu soobee yàlla incha allah macha allah ci yu am solo yooyu noonu mbokk yi ba tey waaye di fàttali rek yéen ñi nga xamante ne yéen a bëgg di jokkoo ak moom numéro téléphone baa ngi noonu ci suufu écran bi leneen li nga xamante ni àdduna askan bi yëpp boole nañ aussi saa su ne di la ci gërëm ci solution bi nga xamante ne indi nga ko ci biir néegu sëy yi mu doon euh, liggéey boo xamante ne da nga ne da nga ko fi bëgg a jëlee ci góor ñi muy néew kattan néew kattan nag yaakaar naa ni yaa ngi ciy def résultat yu am solo ndax it doon loo xamante ne da koy jëfandikoo waaye day tàqali ko yow sa giiru dund man de li ma ci yor sax moom bi ci gën a neex boo ko commandé ba ma xoojal la ko booy ñëw di ko jëfandikoo si bu la neexee man nga ànd ak sa soxna sama ni sama kër. da ngaa may néeg mel ne offert sa moom waaye maanaam sama sama sama biir kër gii nii. du ma 30 minutes te jëfandikoo sa soxna. macha allah barke Cheikhul Khadim boo sa soxna ñëw. Mhm. bala ngaa génn kër gi bu la neexee nga jëfandikoo garab gi. Mhm. waaw loolu moom euh, alhamdulilah rabbil alamin moo ngi dem ci réewi naar yi moo ngi dem ci réewi tubaab yi ñi ci ëpp sax maanaam boo gisee gëj gëj génn gi loolu mooy waral ndax liggéey bi di leeg day jafe te doo naan doo kii da ngay tiimale sa sàkkar fen rek raxas waaw boo raxasee bu soob yàlla bu fendee moom da nga da nga joteeg soxna si waaw loolu moom alhamdulilah rabbil alamin waaw amul naan amul dara da ngay raxas amul dara raxas sa sàkkar képp waaw nga bàyyi ba mu fendi nga doog sa soxna loolu yéeme na de ñi nga xamante ni lu ne leen di déedéet xam nga naan moom dafa yéeme biir lu ci xas dugg mënut a génnaat du ma ne nag wérut ndax euh, lu waay lu waay xamadi xamadi am na yoo xam ne ci alxuraan lay doon nangam ak nangam nangam waaye tout le temps nit ki war nay mën a kii ndax euh, bul xalaat ne ay sénégalais képp ngay liggéey wala ay malien wala ay kii léeg-léeg garab gi mën a dem états-unis ay tubaab soxla ko léeg-léeg mu war a dem espagne ay tubaab soxla ko léeg-léeg mu war a dem italie ay tubaab soxla ko léeg-léeg mu a dem canada ay tubaab soxla ko mu war a dem arabie saoudite te ñooñu xamuñu ay naan te lii nag dangay tiimale sa sàkkara fen rek raxas boo raxasee bu fendee nga mën a ànd ak maanaam kii. bu fendee noonu nga gisee hmm? ma dem te ñëw. xamante ni bëri na góor yu bëri looloo leen sonal ci néew ànd ak seen soxna lu yàgg. waaw xam nga maanaam ki nga xam si mu ngi jug rek hmm. kooku moom moom garab gi hmm. waaye ki nga xam si maanaam jugut. xamatuma ci lu bari waaye nay jug lu mu tuuti tuuti rek nay jug bu soobee yàlla boo raxasoo garab gi da nga ànd ak sa soxna ba békk du ma laa palay temps nangam ak ndax mbir mi mbirum suñ borom la nañ ko bàyyi ci suñ borom waaye fii gi yaa ngi koy raxasoo bu ànd ak dogalu bi yàlla maanaam dana ko gën a kii te dana gën a jot waaw ndax xam ne yoo xam ne si day kii nii waaye boo ko dee raxasoo rek dana gën a jot te dana gën a tawféex incha allah mm-hmm. waaw incha allah ci kàddu yu am solo yooyu noonu waaye ci leneen li nga xamante ne aussi bëgg naa ñu waxtaan ci lataa ñuy tëj ndax dama la fekk ci ay yitte waaye nga nangul ma rek may ma waxtaan bi ginnaaw gëj gise bi nga xamante ne yaa gëj nga koo gisee ak sénégalais yi bayra gu doy waar gi nga xamante ne sëriñ bi yor nga ko ci lépp lu doomu aadama di dugg wala mu ciy yëngatu bayra gi amul demal ma ñëw danga ciy teg sa bët wala àdduna dañ la dégg ci ni ng ko bëgg. waaw xam nga moom ngeen fekkoon ma ma ma koy liggéey bi suñ xaadim wootee dem na ko mën suñu xaadim jëlal lii bu baax lii bopp bukki la bopp bukki la léegi dafa dafa am bopp bukki bi bopp bukki bi dafa am ñetti façon bayre yu ñu ciy liggéey dañ ci liggéey bayre ci jëmmi nit ki mhm. dañ ci liggéey bayre ngir place dañ ci liggéey bayre pour nit ku weex ak nit ku ñuul mhm. euh, pour place jëmmi bopp bépp ngay jël am yoo bind boole kook suuf wel sox ko ci bopp bi loolu pour place la pour place boo xam ne si maanaam tey yow nga am place nga bëgg place bi ñu koy dégg partout dans le bopp bi ngay jël am loo bind jël suuf bu wel boole ko moom bu fekkee nit koo xam si dafa bëgg bayre nag nit koo xam dafa bëgg bayre boo jëlee bët bi peru bët bi nga jël ko am loo ko booleel jël karaw goo xam ne si jigéen gi jaay boppam mm-hmm. nga boole ko moom sox ko ci jaaro allah kulli dees na la dégg ci àddina bépp waaw beneen bayra bi tamit ci bakkan bi gisoo da ngeen fekk ma liggéey ko damaa dagg bakkan bi gisoo génnee naa génnee naa génnee naa bët bi waaw léegi nag maanaam ku nekk la nga la matière bi nga ciy soxla fi mu toll yi bu ko bu ko nit ñi xamoon daanaka tawarikal macha allah mat na lépp lépp xanaa xamoon même ki nga xam si sax maanaam ca ca dibiteeri bi la la nekk di jaay bëgg bëgg mu dox bëñ bi bu ko jëlee am na loo koy jox mu boole ko moom bu soobee yàlla lu mu jaayatu mu jar di moom ndawalam dootul dootul fanaan wallaahi boo jëlee eh, kii bi tamit maanaam tey ji nga xam ne sa place nit ñi li ñu dugg ko bari bëriwut wala bu ñu duggee duñ jënd nga sox ko suur ko nit ñi day day dañ la dajal. lépp ci bopp bu kii bi nga koy liggéey. waaw gisoo ni ma ni ma la ko ni ma ko bukki dafa yéeme. dafa yéeme loolu moom ñëpp maase na maase nañu xam ko xanaa ñàkk a xam secret baak la ca la ca la ca ajoog nangam a waaye peeru bët bii nii nga xam ne si bët bi nga jël ko euh, jigéen guy jaay boppam ba nangu ne day jaay boppam mu wat ca karaw naqam may la nga am loo ko booleel ba ànd ak dogalu bi yàlla kenn du la ëpp coow ci kenn du ëpp coow li ngay bind tamit nga am ne si da nga koy bind ca ca biir bind ga tamit yow mi may seetaan te am xam-xam tax te nga nangu ne li ma lay wax xam-xam la la ca gën a tuuti ak nodd da koy bind juróom-ñaar fukki yoon boole kook suufu wel ak yeneen yi ca aju nga sox ko ci suul ko sa place ala kuréelin place bi ni ñu dégg ak nodd mm-hmm. ku dégg bukki maanaam na ngay xeloo noonu ngay xeloo ñëw ci place bi mm-hmm. laa budda mënta ñàkk mm-hmm. waaw kon bëri na ay njariñ yoo xam ne si moom moom moom ngeen fekkoon fii ma ma am yu ma ciy def waaw nga am na mënut a ñàkk. Mhm. doon njëriñ ci askan wi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel saa su ne rek bu ñu doogee ak kilifa gu mel ni ñoom lépp day doon njëriñ waaye ci fàttali ba tey yéen ñi bëgg jokkoo ak moom ci numéro téléphone yaa ngi noonu ci suufu ecran bi Serigne Kamal la Serigne bi euh, ci tëj rek du ñàkk ñu wax ci li nga xamante ni aussi mu di wàllum kaaraange ak yenn yi nga xamante ne yaa ngi koy dimbalee nit ñi ci yenn jafe-jafe yi nga xamante ne ba tey rek lépp ci askan bi bokk na ci ki am jafe kayit wala ki ci réew mi fii jafe-jafe tamit doon ay yitteem waaw xam nga moom ci seen site bi laa génne ci ay visa lu nit mos a génne. yow mii doog a seetaan demal vérifier ji. waaw ci site bi laa génne ci lu nit mos a génne ci visa. waaw bu dee mbirum mbirum kaaraange yéen ñi taxaw taxawaayu guddi. yéen ñi taxaw taxawaayu góor. bu soobee yàlla euh, ndomb gi boo ko takkee suñ borom mën na laa musoon. waaw boo ko takkee. bañ bootal ko béjjën bii. nga takk ko. loo jaay mën naa jar te suñ borom doon la musal insha allahu taala ci mbirum kaaraange rek waaw doy na ci kaaraange bëri na de yàqante sànnante yi taxaw man waxuma ñu yooyu yooyu moom xale yi xale yi doog a ñoo ci liggéey xale yi xale yi nekk ci internet beeg ñooñu ñoo ci ñoo ci liggéey moom ay mbiru kaaraange waaye yow mi nga xam ci maanaam li ma la wax nii ñoom ñi may seetaan xam nañ dafa bëri ma waa njàmbur ñu ma ci liggéeyal yow mi taxaw taxawaayu góor moo la boo xam ne si ñoom ñoo ko boo ko takkee loo ca jaay dana jar te bu soobee yàlla sañ borom dana la musal ba caabi du la féete ginnaaw mm-hmm. maa la wax loolu. macha allah macha kaaraange. Mm-hmm. dafa ànd ak bayre moo tax ndax euh, béjjën bee ñu ko booteel mooy kaaraange. Mm-hmm. ci deru bëy lañ koy awee. bu ko defee bu ànd ak yàlla boo joxee sa tur sa tur yaay bañ liggéeyal la ko. loo jaay fa ngay taxaw dana jar mm, te caabi du la féete ginnaaw. waaw euh, li nga xamante ne tudd naa ko sànq nga wax ko ci résultat yi nga ci def mooy nit ñi nga xamante ne kayit day doon seen i jafe-jafe ñu dem fu ne duñu am solution. waaw loolu des koy xool rek résultat yi ma ci wane mënatuma ko wane barka alxuraan ko ni mm-hmm. li ma wane ci kayit. Mm-hmm. nga xam si boo ñëwee sama téléphone ma tijji la nga xool li ci nekk ci visa mm-hmm. yoo xam Sénégal gi la déparé waxuma ñoo xam dañoo jot seen carte séjour waxuma ñoo xam dañoo jot seen permis de conduire mënuma koo compter heure boo kii da nga koy photo yónnee ma mm-hmm. waaw day mel ne jërut jërut wane bi jërut wax résultat yi suñ borom tawfeex na ci bañ na ko ba ñoom seen biir ñoo may boolenteeg yooyu yooyu moom nañu xool tawarkal alhamdulilah rabbil alamin nga xamante ne ñoo am jafe jooju nañu jokkoo ak moom Moussa Faral seen mbir ci jotaay bi ñu am mbégte nag tey bu baax a baax a baax dalal ko wan ko sénégalais yi saa su ne rek ñu yàgg ko bëgg di gis lépp ci ay kàddoom doon njëriñ ci ñoom sëriñ bi am nañ mbégte bu baax a baax a baax tey ci am ak yow jotaay ma bàyyi rek nga joxe dernier kàddu yi naam may nga ñu am ak yow jotaay maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan réew mi suñ borom gën fee wàcc jàmm suñ boroom musal ñu te mosal ñu mboolem jullit foo nekk di dégg sama kàddu gi yàlla na suñ borom musal ci gàcceeg àddina ak gàcceeg alaaxira te sotti la ay xéewal ba ngeen mën a dellusiwaat ci réew mi yàlla na yàlla jéggal suñ ñaari waajur sa jéggal ñu yërëm suñ ñaari waajur te yërëm ñu te gaal gii di Sénégal yàlla na fa suñ boroom gotti ay xéewal te yërëm ndaw ñi fi ne bañ mën a fu ñu bëgg a yóbbu réew mi daal yàlla nañ ko fa yóbbu ci dara jëm soi salaatu alayhi wa sallam jërëjëf euh, ci jotaay bi ak kàddu yi am solo yi mbokk yi nii rek la ñu ko siixteen woon ak moom di kontaan bu baax a baax a baax ci jotaay bi di leen jox dig daje ci beneen numéro ci la ngeen jëf